bi initiative la bu jógee si Lala's Cleaning waaw dañ gis ne suuf si kaw tali bi torop so ñu ne nañ ko try si lañ nekka tey mm-hmm. Lala is a private company buy joobal boppam waaye man I was working for the council waaye after dañ jël suñ team suma team bi man maa suma team bi ñu transfer ñu to Lala's pour ñu work with them pertaining to um, independence drive alone put cleansing bi so this time Lala's in collaboration with Standard Chartered ñoo indi this initiative ne dañ bugg suuf bi génn si kaw tali bi because tamit ngay bale génnee tilim bi bàyyi fi suuf bi ba léegi wane wut ne sa job is normal waaw so looloo tax ñu ñëw fi tey pour loolu waaw council moom xam naa ne seen responsibility mooy pour gis ne Banjul mu ngi set in both areas because sanitation bi si ñom la li ñoo job nisa sax should have been their job because of council more responsible all these things waaye tamit benn loxo du doy so mota Lalas and Standard Chartered collabo ñëw ko indi this initiative pour make sure ne gis nañ ne di streets of Independence Drive the biggest street in Banjul nga xamne ku nekk kuy duga Banjul fi nga aw kuy gene Banjul fi nga aw should look very gently and neat so moo tax ñu ñëw with this am na time bu ñoo liggéey si gannaaw fële fi moto yi nekka dañoo war a sega pour war a génnee suuf bi si ron moto yi te loolu is abnormal ba pare soo bàyyee xel moto yooyu noonu dañ fi paak ay mons ñu ngi paak dawuñ muufuñ you know ba pare double parking bi day happen fii daf dee make street bi congestive sa sabale du set cleansing bi du set so li ma wax rek mooy council dafa war a jël measures against what is going on you know because dañ dee maslaa ak yenn yu bari yoo xam ne du ko dee jar am na yoo xam ne dafa passé maslaa because of nit ñaa ngee dem forward te si développement lañ nekk non so te suñ waree développe tamit foog mu am message yoo xam ne dañ koo war a jël man dama bilib ne dañ war a set up penalties against this te pare independence dafa nekk war a nekk koñ boo xam ne moto warul di fi dee paak di fanaan because it's the busiest street in Banjul kuy dugga kuy génn moto yëpp dañoo dugga moto yi di génn moto yi te being the big am the busiest street and the biggest street dafa need pour clean all the time su ko defee ñiy romba ak ñiy dugga si ak ñiy génn di gis ne dëkk bi mu ngee set waaw because of suñ setobee fines setop a committee boo xam ne moo mooy amee loolu noonu setop fines won la ne la sa moto suñ ko fekkee fii nañ la fine nangam am not going to be skeptic or say a price or lu demee nu waaye suñ la ne sa moto bi suñ ko fekkee fii nañ la fine nangam ñu fine la fine la twice na ngo jël di taat one because da nga gis ne mu ngi la affect on the other hand té tamit moto yi nek ci ko talibi ni tilim bi ci si ronam munu fa génn nah, at the end of the day yow borom moto bi ci bo sa boppa sa da nga bëgg blame the council of ne the street is not clean you know té fekka street bi mu ngi wala clean why because of sen moto yi ni fa pagé is abnormal yaa ngi understand so believe na ne foog ñu jël measures because si developing world bi fu nekka fo mu di dem Gambia rek la lu mel nii it's only indi the Gambian where you see it yaa ngi understand because musuma dem Europe nag xaw ma expérience Europe waaye am naa déggin bu bari si Europe yaa ngi understand sa su pàggee si mbeera bi dañ koo lonka yóbbu suñ ko yóbbu soo ko fa waree jëli di nga fay loo xam ne mooy loolu te du la dee arrangé so you need to follow the rules and regulations waaye man dama believe ne Gambian bi not all but some Gambians dem nañ school def nañ du bëri waaye ignorance yi moo gën a sonal Gambien soo dama bilib ne dañ dee ignore lu bëri loo xam ne ñun laa sonal te comme exemple tey am na loo fee bugg a tey because of sa bànneexi booba sa doom du ko bugg a soo léegi-léegi dañoo xool general no equation dañoo generalize everything xam ne lii man nu ma ñàkkee affect could have affect the other dégg nga fu mu nekka nii man suma job lii mu ngi koo affect you know dama dee bëgg a gis district of independence ak mu set clean nga xam ne kuy dugga di ko gis kuy génn di nga ko gis am na talking about mu yi nga xam ne te comme for work ñoo am na ñëw job si mais bi si hospital bi ak si court house bi demee noonu because ñooñu xëj na mun na ñoo paak for certain time la dañooy dem waaye moto yi nga xam ne they stay yooyu is a big problem te su tekit because comme lu ma wax rek developing world bi yep la fu nekk sa council sa council mo amé area bi mu so council bi tamit areas yi la mun generate yena kay ni income yo xamné will be helpful su ko defee di gis creation of jobs for certain people because ñu bari joobuñ da nga understand so ñom tamit war nañ sen seen borugal la pour ñu create a car park for xamné su moto yi ñëwee pour jobs fa la ñoo dem park den so wàccee nga dem collect sa moto génn waaye comme ni dëkk bi mel fu mu nekka nii non soo ko xoolee sax du leen nice pour nga explain lu bari because sometimes the way you talk people bi nuñ ko dee gise is different from yow the motive you trying to bring out xam nga sometimes people bi duñ know what is behind the motive liñ dee understand rek mooy critics te I believe ne critics makes everything easier because without critics dara du dox understand So people will then need they need to be crit criticized in certain areas. So if you say criticize Nikki like you are an enemy. I understand. Te du loolu because you ñëpp ñoo bokk a dëkk bi xëy na man lii mooy suma quota am na keneen kuy doxal leneen am na keneen kuy doxal leneen lu ko ëpp you know waaye council bi dafa war a create a car park tamit pour easily this tense because dafa dafa important torop pour ñu gisaat suñ boppa si situation buñ bëgg a gis suñ boppa when we talking about development council am na ways and means pour mun a create lu bari si dëkk bi because of this land belongs to Banjul land bi Banjul la koom so council am na right bu bari pour contrôle yenn land yoo xam ne within Banjul moom moo ko moom ne I have the right to build a car park su ko defee ñi nga xam ne dañoo ñëw indi seen moto yi suñ pagé is an income generating avenue Ya, ngi understand environment bo xamné la mu ngi generate income su ko defee ñii ñëwa seen moto yi dañ xamné wa diga diga diga kon su ko ñëwé ba Banjul pour job su mo moto fi la wara a paak di res fii laa ko wara défé su mo paré jëli su mo moto dem Ya, ngi understand waaye man particularly I have problem with moto yi nga xamné dañ dé stay street bi not going not moving benn place dañoo toog te suma job area boobu la gën a kooba loolu la rek comme ñu seen moto yi yaaxu ñoom definitely dañ war a génne seen moto yi si street waaw moo tax si beginning bi ma wane ne council dafa war a jël mesos because lii yëpp foog wane wuñ samples du ease dafa gën a grow rek dafa gën a grow because te mu ngi ma dal ma ngay job waye dama war la dem ci keur jàmbur li nga xamne sen moto yaa independence ak ba pare ñom sax téewuñ independence life mo war dem ba ci ñom pour négocier ak ñom ñu ñew gene sen moto yi independence life pem pem fu mo taxaw ni so gisé suma job bi stobagum ni sax lool la because amna moto yoo xam ñu ngi taxaw ci environnement bo xamne ñu ngi wara clean fofu non So arrangé wu mo tax ci lool la gëna particular at this moment Tanshul yëgut sax ne ñu koy joob lii the man bi ma rombatee bunti Kansul laa gis Max may ko explainer ma ne ko Max tey de suuf si lay génnee si kaw tali and he appreciated it xam naa ne message bi dina aaga si lool you know because man lool suma nit la day understand suma waay la definitely she is trying te ñu ni tamit ñu ngee try pour help ko pour gis ne dëkk baa ngee dem ni mu ko buggee day understand waaye lee na rek laa koo ñaax mooy na try tamit mu jël meesoos towards Independence Drive man loolu rek laa koo ñaax definitely in general sax koñ yu bari soo fa laaxee dang dee because of foofu noonu problème bu ñu fa dee gën a am mooy trucks mooy proxy ba pare proxy liñ daree tontu driver proxy ak coxeur yi nga xam ne Gambian lañ ñooy indi proxy foofu noonu di eb di ee bi luñ tontu yow sa ne you are not a citizen of this country because man dama dem ba believe ne the fruit of this nation is eaten by others yaa ngi understand sa right sax mun doo koo am sa dëkk nit dafa ñëw pak trogam sa bunti kër yow yaa ngi am moto pour mu ñëw paak sa bunti kër sa mu ne la seede yaawoo laa amee te seede yaawoo ñun su ma ko amee fu ma neex mun naa taxaw so loolu laa bëgg a council bi jël measures towards that because ñun suñ bunti kër yi ñun ñoo ko moom yaa ngi understand doo tëdd ba guddi late hours truck taal machine trop dafa taal for 15 20 minutes before truck bi move te loolu mu ngay joxe problème because am na kuy nelaw am na ku feebar te da néega am na xale yu ndaw yoo xam ne ay liir ay yeneen a yeneen yaa ngi leen di yeetal guddi gaa ngi métti xaaj yaa ngi war a liggéey suba amuloo nelew bu doy because of drugs loolu tamit arrangé wut arrangé wut anybody especially citizen bi sax si boppam because am na ku ma musa benn story truck driver la in certain countries su la fa moto sa truck taxawee si capital bi by one o'clock you face a great penalty by 1 o'clock in the afternoon, you face a great payment. So why not you need ñu digital those measures. council be xam na ne trucks yi dañ dee street because complaints are gonna council several times. council dégg na several times reports are coming reports are coming The last time the last week the taxaw suma bunti bun ticket, magis council policy, ñëw be small coin. Troxypac ñuy génnee seen plate ndompay di koy yóbbu which means ne xëy na create nañ an avenue to see ne Troxy nañ door di bàyyi di park suñ streets because bu loolu dooree di am benn maa ngi gis ne Trox ñu koy door di wàññeeku within that vicinity yaa ngi understand waaye ba léegi daf ñu féebawul ba pare believe naa ne di other problème mooy stores stores because da ngaa xool koñ bu mel ni Oxford koñ boo xam ne man su ma tëddee rek ni du romb su ma tëddee si cat bii ba cat bii rek mooy koñ bi jeex ñu bil fas too troog war a ñëw taxaw fa méegul sens yaa ngi understand ba pare may ñaan tamit ñi day jaay seen kër yi ñi day jaay seen kër yi ñuy traité di xool kansul bi sa ñëw ba kansul jaay seen kër bi kansul bi sa kansul bi jënd ko sax développe ko mais ko an environment bo xamné people bi dañu mëna a tan mu nekk stores because fii kër cosaan yu bari now store la ba pare ñii store yi dëkkuñ dañoo ñibbi nas lay ñi fi am store yëpp ñu ngi dëkkee Kololi Fajara Bijilo Kër Seri ya nga understand trucks yi dugg si Banjul yëpp dekuñ fi ñom nan du duñ ñu like ñoo ñu indian lañ You got no interest for this country You send interest mooy to weak the economy of this country because of one thing tamit government is not taking its part government jëlul partam yaa I understand government from mu nekk nii di laay think pour mu def ko mooy dafa support citizen of this nation government dafa war stop all importation by foreigners because ñun lekka yi ñoo lekka nii ñun xamuñ ko foreigners import soo demee si vicinité seen sorcier yooyu noonu doo gis Gambian buñ employé ñooy jaay maalo ñooy jaay sukur ñooy jaay diwlin ba pare di same foreign people bi nga xam ne ñoom la gaa yi dikkal ñoo amee puus which means ne ñooy collect sa xaalis ba pare collect di little change you get pour transport and is going away so government tamit dafa war a jël big step support councils all councils Lami, particularly Banyu, because it's the capital. You dafa war Dafawara notice, Dafawara notice all households in Banyu, compounds in Banyu. Bindalen letter. Comme ni mu bindee letter pour collecte l'impôt. Daf leen war a bindal letter ñoom ñëpp. woon leen ne ku dem ba sawa ba amatuloo interest si sa kër gi du des rek mooy pour jaay ko wal si council bi council bi jënd ko. develop ko def ko leneen mu nekk dëkkuwaay yàlla nee na leen because yëpp revenue la is coming back to the country ba pare yaa ngi yaa ngi remain sa citizen bi sa citizen si ñu stay in Banjul at the same time yaa understand so council loolu tamit daf si war a jël step because loolu is very important is very important bu la dee naxari nag su fekkee ne though they read this situation, you are not an observant person because of so nekk ku observant rek di nga xam what is going on waaye dëkk bi nekkut si loxo Gambian si fu mu nekk nii because of soo gisee ma wax ne nekkut si loxo Gambian si man gisuma Gambian buy employ citizens si dëkk bi one compagnie ñëw yëpp is from foreign ba pare 100 percent 2 percent la ñoo si Gambians companies yaa ngi fi bëri yaa ngi am GMC soo duggee GMC doo dégg ñun suñ olof ñun olof bi ñoo laaka doo ko dégg fiw ngaa dégg ak yeneen different kind language from the coast which means ne foofu dama faa blame the Gambia government dama faa blame the Gambia government because dama believe ne soo ñëwee si dëkki jàmbur with a company with a company laa la wax force three heads yëpp dafa war a nekk sa citizen of sa citizen yi dëkk force three heads yëpp dafa war a nekk sa citizen yi dëkk ah, yaa ngi understand su nekkee si loi bi tamit imply yuñ ko si système bi parce que man am naa expérience bi nii with a company bu doon joobal lu ñu njëkk a hint ne loolu mooy comme ak ñun liñ mujjee fekk foofu noonu is different which means ne su fa citizen of this nation nekkoon ñu dinañ si